mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi arbi baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Bébé Diouldé moo féete à gauche Brise de moo féete à droite baa ngi wax ñoom arbitre baa ngi laaj ay jugeem arbitre laaj na ki nga xamante ne mooy pare nga laaj na Bébé Diouldé mbokk yi les vingt heures une minute le 20 mars Bébé Diouldé Brise de Mer numéro 2 saakuy fekkiwul abi sëb la naan ñu demee ba ci di lewaatoo Bébé Diouldé wàcc na ba tolloog moom Brise de Mer numéro 2 à droite Bébé Diouldé à gauche Brise de xale yaa ngi noonu ci digg géew bi Brise de Mer numéro 2 Bébé na léegi waaye Brise de na tekk di ko déglu c'est lamb le retour de Bébé Diouldé il va passer ou bien il va rester loolu ci dara ci kanam lay leer le vainqueur de Tmax Brise Mer numéro a dem wala dafa bëgg a xeex moom waaye Brise Mer a ngi mel ni ko ko ragal te loolu ci Bébé Diouldé a ngi mét waaye Brise a ngi ne tekk du ko xool arbitre bàyyi ko mu bëre loolu la stratégie am lay Bébé Diouldé Bébé dox ci kawam door na ko droite bu dal waaye ci garde bi la dal Brise meilleur Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé door na ko da koo bëgg a jël waaw Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer am na benn avertissement Brise de Mer retour de Bébé Diouldé Brise de Mer door na ko wala boobu Bébé Diouldé door na léegi coup dafa bëgg a xeex ak door na ko ku droite Brise de Mer Bébé de

Brise de Mer Bébé Diouldé moome Bébé Diouldé moode lale baaxu góor la Bébé Diouldé Brise de Mer numéro 2. Brise de Mer ci tànk Bébé la bëgg a dem. waaye est-ce que Bébé Diouldé dina ko ko may. Bébé Diouldé Brise de Mer. Bébé Diouldé nga dox ci brise de mer Bébé Diouldé brise de mer wàcc na Bébé Diouldé taxaat na ko ñoo ngi xeex génn na Bébé Diouldé taxa brise de mer taxawal brise dafa mel ni stratégie lay bëree brise de mer am na trois avertissement arbitre sifflé waat na Brise de Mer Bébé Diouldé ba Brise de Mer ba lu mu cay ba da koy daan da koy daan da koy ko ko daan ko Brise de Mer ko indi na stratégie la andi stratégie la andi daan na ko Brise de leen kay du leen ma tooñ. lan la ay kontaan naa. moo bëree. kontaan naa. da nga gis nga daw topp ko mu daw dina topp. da ma conseillé. da ma conseillé. da ma conseillé.